salaamaaleykum internet bpactu point com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mardi 14 janvier 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak njaay mi Amina maa ngi lay siyaare siyaar naa la Omar di siyaar képp koo xamante ne yaa ngi ñuy suivre saa su nekk si bpactu te di leen dalaatal jàmm ci seen xibaaru revue de presse. noonu la demee dañu koy ubbee ak journal bu stade mu ñëwaat ak ñun ci CAF 2021. calendrier boo xamante ne nii génn nañu ko Sénégal nag dina joué ak Guinée Bissau waaye ci mois de mars bi Lamina. waaw loolu mooy éliminatoire CAN 2021 yi dafa mel ni nag Sénégal ak Guinée euh, dinañu jàmmarloo ci mois de mars mu nekk loo xamante ni nag match bu am importance la ci Sénégal ndax dina leen permettre ñu am pas en avant jëm ci li nga xamante ni moo di kan bi kan bi nga xamante ni nag juin lañ ko jàppoon mais dafa mel ni reculer war nañ ko ba janvier 2021. mu nekk loo xamante ne nii daf ñuy gën a permettre ñu gën a waajaat ñu gën a xoolaat bu baax a baax a baax fan la ñuy teg suñu tànk ndaxte tey kan moom équipe bu Sénégal lu mu bëgg la lu ko war la mu indi ko Amina. lu ko war la mu indi ko ku ci mel ni Sadio Mané keroog wax na ko xamal na ni ñoom lépp lu ñu mënti am rek jël kubu. Euh, Afrique bi moom moo leen ko gënal ba tax na keroog ba mu jëlee li nga xamante ni moo di ballon d'or africain bi dafa yëkkati ay kàddu yoo xamante ni daw na yaram mi ngi naan tey jii su ma mënoon weccoo coupe d'Afrique bi ak kubu africain bii ma jël dinaa ko def loolu mooy wane ne rek seen jom seen fulla seen fayda mi ngi ci jël li nga xamante ni moo di coupe d'Afrique bi. noonu la demee dañuy jàll nag ak journal bu record mu ñëwaat ak ñun ci ki nga xamante ne ni doomu Sénégal la malgré mi ngi ci France ci équipe bu Metz di wéetu turu opanget moom nag yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Sadio Mané il est fier dafa fier ci Sadio Mané moo tax mu ne Sadio maane est notre leader Amina. moom moo ko wax Opanguette nekk attaquant fële ni la ci Metz moom nag mi ngi yëkkati ay contentement moom ko jëmale ci ki nga xamante ni moo di Sadio Mané te naan sax Sadio Mané a atteint un niveau assez exceptionnel maanaam daal jamono ji Sadio maane tollu na foo xamante ni royukaay la ci ñoom ba tax na nag mu naan prouvé na place am ci côté mag ñi. pour benn place am ci côté mag ñi waaye référence la ci xale yi référence la ci képp koo xamante ne ni da ngay wékk bal maanaam da ngay football Sadio Mané sa référence la waaye beneen concurrence am na ci diggante xale yi diggante Ismaïla Sarr ak Diao Baldé Keita concurrence bu metti moom moo am seen biir mais yaakaar naa ne concurrence fu mu amul rek baaxul. concurrence fu mu amul baaxul ba tax na sax man dama naan moo concurrence bi nekk na loo xamante ni dafa xaw diir ci diggante ñaari gaynde yoo xamante ni ñoo bokk seen Sénégal te tey jii leen dong mooy seen mbëbët Sénégal jëm ci kanam mais nag ñu ko waxee ci côté liggéey moom bu ñu amul concurrence rek dama naan jom du am ba tax na ñu naan Isla Ismaïla Sarr mi nga xamante ni moom moo devancé woon Keita Baldé ci sélection yi nga xamante ni Aliou defoon na ko ci année bii ñu génn jamono ji nag Keita Baldé dafa mel ni dafa fulaat pour gagné waat li nga xamante ni moo di place am ay xale lañ yoo xamante ne ni mën-mën bi mi ngi ci ñoom pas-pas bi mi ngi ci ñoom te bëgg-bëgg bi mi ngi ci ñoom bu ñu defee somme effort rek lépp lu ñu perdoon perduñu sax waaye lépp lu leen xaw wan a raw dinañ ko romboo di wéy ndaxte nag ay xale yu am jom lañu waaye ci Espagne équipe bu Barcelone ku ne xam na ni seen entraîneur bi moo nekkoon Valverde Valverde nag prend la porte loolu la ñu bindal ci journalu ko ñaari at la amu fële nale ci Barcelone moom nag Valverde dafa mel ni dàq nañ ko nekkatul coach waa Barça lan moo ko waral dafa mel ni daal dafa joteewaat ki nga xamante ni moo nekkoon Morona. ginnaaw loolu nag moom nee na jéggalu na ko mais décision yi jëm na ba pare Valverde daal jóge na ci équipe bu Barça léegi question bi lan la kan mooy nekk prochain sélectionneur bu Barça. mu nekk loo xamante ne dañ ci yónni yàgg rek. après dinañu xool fu wànnante di mujjee ak ay bëtam Aliou Cissé bientôt mu commencé li nga xamante ne moom mooy ay tournée européenne moom itamit journal bi fësal loo ko Amina. benn na ko ci ay calendrier moom Aliou Cissé dina def ay tournée européen ci biir tournée yooyu nag dina demaat jàngiwaat loo xamante ni dafa baree bari ba tax na dina tasante waat yeneen sénégalais yoo xamante ni ñoo ngi ci yeneen club te amuñu woon chance fii nii ci biir Sénégal loolu yëpp daal jàpp naa ne bokk na ci li nga xamante ni moo di préparation CAN 2021 bi. noonu la demee comme journal bu record Amina dafa deux ans bu duggee fii ba pare après dina dugg feneen feneen fi mu mooy ci làmb. mu ñëw ak ñun ci Balla Gaye numéro de ak Boy Niang doomu Dégol ak doomi Double Less doomi way ak doomu Pikine loolu nag nekk làmb joo xamante ne nii fan yëpp ñu ngi naan dina am ak du am le premier tigre de Fass Mbaye Guèye yëkkati ci ay kàddu ne Balla Gaye 2 doit prendre Boy Niang pour quatre raisons. gisandoo kon Mbaye Guèye ngi noonu nekk premier tigre de Fass yëkkati na ay kàddoom naka di ko jëmalee ci combat bi nga xamante ni moo waroon dox ci diggante Balla gay 2 ak Boy Niang moom daal jàpp na nii Boy Niang 2 war na jël kii nii di Balla gay 2 war na jël Boy Niang 2 pour quatre raisons ci biir quatre raisons yooyu mi ngi naan primo Balla Gaye 2 moo taxawoon nii pare na pour jël Boy Niang 2 deuxième bi nag nekk que ni Boy Niang 2 prouvé na bu baax baax pour mën a bëri ak Balla Gaye troisième bi nekk komba boo xamante ni amateurs yi ñoom ñoo ko soxla ñoom ñoo koy laaj quatrième bi nag jàpp na ni. lekk na loo xamante ni dafa ñor xomm te nit ñi dañu ko war a mitt màcc. noonu la demee loolu mooy ay kàddu ki nga xamante ne ni Amina bu làmb yegsee fii daf cee def lu doy waar daf cee def respons daf cee am responsabilité yi nga xamante ne ni moom moo ko ci defal boppam ndax Mbaye Guèye Amina bu joxee écurie bi gën a mag ci Ndakaaru moo ko fi samp muy écurie Fass bañ nañ ko bari naan sax léegi moom mooy université bi waaye nañu dem ci journalu consommé local journalu suñu làmb mu ñëw ak doomi Dégol bi ñëw ak Boy Niang numéro 2 doomu Pikine ki nga xamante ne nii bu bëree mu neex bu feccee mu neex surtout Cheikh Yérim du mban la moom nag mu ngi yëkkati ay kàddu Amina jëmale ko ci Balla Gaye numéro 2. comme Boy Niang 2 rek yëkkati na ay kàddu kàddu tontu jëmale ko ci Balla Gaye mi taxaw ni woon ni booy ñaar dafa war a prouver waat wala muy bëri ak moom moom nag nee na li Balla Gaye di wax intéressé wu ko nekkul sax loo xamante ni daf koy déglu li ko leer te mooy que Balla Gaye 2 mu rejeté ko ak mu ñàkk koo rejeté moom dina am combat ci saison bi te daal jàpp na ni bis bu téyee Balla Gaye 2 dina ko diw kaasu fonde bi. man nag looloo ma ci xaw a jaaxal. gaynde bu doy ni Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye doomu Mari Fara doomu Sénégal Balla Gaye 2 bi nga xamante ne Amina moom la naan dama lay daan ci 22 secondes daan la ci. dama lay daan ci moins d'une minute daan la ci dama lay daan ci une minute daan la ci nga ne danga koy diw kaasu fonde xale bi décidé na de. maam daal yàlla bu fonde man man mii daal tiit naa trop fonde bu tàng nga nar ko di lion de Guédiawaye ah Boy Niang numéro 2 xale la boo xamante ne nii Pikine la dëkk Pikine la juddoo Pikine la xam amul ay tànku ginnaaw waaye mi ngi bëri koo xamante ne nii nañ def attention ci moom boo xoolee communication bi ñu gis ci Boy Niang bu ñu ko tàmmee ci làmb c'est grâce à Balla Gaye numéro 2 communication bii la utiliser face a Yaxya Diop Yékini communication bii la utiliser face à Mohamed Ndao Tyson communication bii la Balla Gaye utiliser face à Balla Gaye numéro 2 kon Boy Niang dañuy xool ni dafa ñëwaat. pour retracer carrière Balla Gaye numéro 2 pour ñëwaat ci ay failles yi nga xamante ne ni daan nañu ko gis naan baaxul ak baax na boo xoolee bi ñu ko koy wax keroog dina ko li nga wax sama ay mag wax ko sama ay grand waxu ma la xaaj bi kon na Balla Gaye de préparé wu xam ni dina dégg dina dégg ndax te xale bi muy bëree xale la boo xamante ne ni génération 2009 la bi mu duggee ci làmb yàggul génération bi moom ak rakam ñoo duggandoo ci làmb Boy Niang ak Sa Thiès ñoo bokk même génération bi ñëwandoo ci làmb kon Balla Gaye numéro 2 na très très très très attention ndax làmb la buy neex làmb la boo xamante ni nii làmb bu am enjeu la ci ñoom ñaar ñëpp waaye amee naa làmb ji nga xamante ne nii ñu ngi ko doon xaaral xaarandi diggante am Baldé ak Modou Lô le promoteur a été arrêté par la police léegi nag fi mu toll nii Amina am na benn message bu jub ci côté promoteur bi loolu la ñu wax Luc Nicolaï depuis prison yëkkati na ay kàddu di ko jëmale ci waa staffam di leen jox ay ndigal ndigal yi nag mooy lan mooy que bu kenn yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci combat bi war a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé moo naam daal moom lenn la privilégié jamono jii muy lan patt ak organisé. mu privilégié lu am solo nag ndaxte yaakaar naa ni dañ la naan sax moytul ma ndox mu ne teg mun na laa rey mun na laa yóbbu ci lu ne waaye amee làmb ji nga xamante ne ni moom moo war a am le cinq avril incha allah muy Siteu ak Papa mu nekk làmb joo xamante ne ni Siteu ku ne xam na ndaanaanam ci làmb bi mu duggee ci làmb lamb yàggul waaye dayo bi ak bëgg-bëgg bi ak mbooloo bi indi na ko fi nga xamante ne nii fii la yegg si waaye muy bëre koo xamante ne nii ci làmb amul ku ko bañ a jox cër ñëpp koy jox cër ci làmb ndax ndaanaanam ñëpp koy jox cër ci làmb ndax expérience am mu wéy ci turu Papa Sow le Puma de Fass ñoom ñaar dañu amal seen face à ci àjjuma bi Amina. Siteu ak Papa Sow ñoo ko gisandoo mu nekk combat bi nga xamante ni jamono ji moo nekk au diapason promoteur Pape Abdou Fall tëggu ko choc bi nag war a nekk le 5 avril incha allah combat boo xamante ni ñëpp ngi koy xaar di ko naani attaaya mais nag dafa mel ni seen jàkkaarloo seen premier jàkkaarloo vendredi bii lay am ca étoile bu teeru bi. yaakaar naa ne seen jàkkaarloo la dina neex ndaxte tarkindaa bi bu ñëwee ak façon communication bu bees. Papa Sow ñëw ak façon communication yaakaar naa ne dinañu jaay làmb ji dinañu yóbbu làmb ji foo xamante ne ni ñu ngi ko fay xaar nañu dem nag ci journal bu la Tribune. Tribune nag tey dafa ñëw ñun ci enseignants yi nga xamante ne nii boobule ba tey ñi ngi amal seen i ay grève Amina. enseignants yi moo nekk ci waa G20 nekk joxe woon nañu nag avertissement avertissement ñoom ñoo nekk agent public bi jamono ji nag dafa mel ni tey jii la amal seen première grève d' avertissement jëmale ko ci njiitum réew gi parce que boobu ba tey nag ñoo ngi ñaxtu loo xamante ni tontooguñ leen ci benn yoon. waaye nag jeexagul de li nga xamante ne ni moom mooy faculté médecine ak pharmacien yi ñoom itamit fësal nañ leen amina ci journal La Tribune. ca université Cheikh ente Diop bu Dakar la faculté médecine pharmacie ak dontologie ñoom daal jamono ji dafa mel ni fa seeni nañoo taxaw temm ngir lan ñu wéy leen ci fi nga xamante ni foofu la ñuy xëy di defee seen ay études bëgg nañu daal seen ay conditions ñu amélioré ko ba tax na naka tey jii ñoom xëy nañu kenn defu fa cours ci faculté yi nga xamante ni moom laa ñëw di la ko limal nii muy médecine pharmacie ak dontologie. mu nekk loo xamante ne ni euh, yaakaar naa ni lu jara jara jara jara def taxaw seetlu la ndaxte bu ñu xoolee université fa la jànge bu ñu mokkalee na daal di ñëw pour servir ko li nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi nañu ko jeexalee ak journal bu l'Observateur mu ñëw ak ñun ci mbirum Lamine Diack ak Massata Diack boobule ba tey ñu ngi ciy waxtaan di ci amal ay débat amina Lamine Diack ak Massata Diack muy père et ñu waroon leen a jugé démb fële na leen ci tribunal bu Paris ginnaaw affaire corruption ak détournement bi nga xamante ni doon nañ leen ko jiiñ mu nekk procès boo xamante ni nag nit ñi yàggoon nañ koo xaar mais ba ñu demee ci tribunal bu France dañoo tijji procès bi rek daal di koy tëjaat ni leen renvoyé nañ ko ba mois de juin incha allah. leneen lu xewoon ci réew mi ñu ñëwaat ñu ne woon jeex na ñu jékki-jékki muy mbirum faux billet ak kan Thione Ballago Seck chanteur boobu nga xamante ne ni mu ngi ci réew mi ñu déggoon ni setaloon nañu ko wécc ci mbirum faux billets fi mu ni nag démb ba tey coow loolu daa daal di beesaat ci suñu ay bët waa jamono jële moom picc moomoon boppam fu ko neex naaw ba con balaa ko sekk ñu teggiloon ko bépp charge ci affaire phobie bi nga xamante ni jiñoon nañ ko ko depuis 2015 mais dafa mel ni nag cour d'appel jamono ji dafa joxe paas ni dem leen woowal ma ki nga xamante ni moo di con sekk ngir lan ñu jugé waat ko ci affaire phobie de banque bi affaire bi nag jugement bi nag ñoo ngi ko war a amal le 17 février bi ñi ñu jublu incha allah. mu nekk loo xamante ne ñun ñëpp jàppoon nañ ni sedd na juge bi daal woote waat ci loolu waaye mbirum yoon la ñun duñu yoon ñun xamuñu luy yoon amaana sax sax du ñu jéggi di yoon dañu ñaanal suñu borom def ci ndox mu sedd waaye amina leneen lu diis leneen lu daw yaram leneen li nga xamante ne ni day metti mboolem nit waxuma lu jullit waaye mboolem doomi aadama li nga xamante ne nii gis nañu ko ci almeer yi nga xamante ni moom moo nekk ca Baqiya tuuba maanaam ñëw yi nga xamante ni ñu ngi leen di sulli bañ nañ ko ba am na sax ay kilifa diine yoo xamante ne amina fësal nañ leen ci journal bi. kawteef man dama nan xeeb naa sax kawteef parce que lii nii xamuñu nit nañ la ko mën a tuddee lu toll ni ay tomb ay bàmmeel nga dem ba fële ne la bàkk ya mu nekk cimetière yoo xamante ni dafa fees dell ak ay doomu aadama ay jullit tëdd fa nga ñëw di sulli seen ay bàmmeel ba sulluwaale bàmmeelu ki nga xamante ni moo di yaayu Serigne Abdou Karim Mbacke mu nekk loo xamante ni nag ko doy na waat torop torop torop torop ah jamono ji Sénégal xamuñu fan la ñu jëm ak ñoom kenn daal ci ñoom arrêté nañ ko ñaari suspet arrêté nañ ko mais jamono mais lii man xaw ma lan laa ko mën a tudde maa ngi sax dër. Amina pour mu gën a leer ci nit ñi nga xamante ne ñoom ñu ñuy déglu loolu la ñu bind ci journal l'Observateur la tombe de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacke. profané loolu la ñu bindal ci journal bi ça que dañoo fekk. bàmmeel bi nga xamante ne nii fa la way jur wu jigéen wu sëriñ Abdul Karim ma borom Makarimal laa tëdd ñu sulli ko ñu fekk ko mu sulleeku jàpp nañu ci nag kenn am na ñeneen ñoo xamante ne nii ay suspect lañu ñu leen di jéem a xoolaat waaye yaakaar naa ni amee naa lii moom état moom moo ci war a jóg ndaxte ñaaw na torop waaye Omar war a ragal yàlla tamit mi ci waxuma état jóg ci mais jullit bu nekk war nga mën a ragal yàlla àdduna laay wax képp kuy dox rek war nga mën a ragal yàlla ba nit koo xamante ni tey jii mi ngi ci dëgg yow yaa ngi ci caaxaan fa mu tëdd xamoon nan la fa tëdd nga ñëw sulli bàmmeelam surtout ma sulli bàmmeelu waajur bu jigéenu sëriñ Abdou Karim Mbacke maara day taal ci tudd bi ma koy tudd sax maa ngi ciy tuub te di ci jéggalu mu nekk loo xamante ni nag doy na waat torop ba ku ko dégg sax danga naan nopp darooti na. nañu ñaan suñu borom leeral lépp li nga xamante ne ni mi ngi ci ginnaawu lii ndaxte. Euh, sëñ Abdou Karim moom mooy Sénégal sëñ Abdou Karim moom mooy sëñ Fallou te sëñ moom mooy Sénégal ñuy ñaan suñu borom leeral lépp te am nañ ci yaakaar am ci yàkkee ni lépp dina leer ci doole Cheikh incha allahu incha allah rabbi yàlla mën na ko dina ko def dina leeral ñaawteef boobu ñu ko def ñëpp ba yoon teg mën leen a teg loxo bu ko defee nag dafa mel ni euh, li lañ leen indiloon ci ay xibaaru revue de presse di tàggatoo ak yéen te di leen bégge bu baax a baax te di leen jox di daje bu suba incha allah Omar bégge naa la te naan la bu suba. incha allahu rabbi ba suba incha allahu rabbi fu jàmm yendu yàlla na fa fanaan fu mu fanaan yàlla na fa yendu ak mboolem jullit ñu ngi leen jox dig daje ba suba incha allahu rabbi jaa ngeen